moo Aja. C'est bon Bonsoir à toutes et à tous, messieurs, dames, très chers internautes. Quel plaisir. On est ici, puis le Khanyo Modiker, Awa Banaya, Awa Minga Khamenaka, elle n'est plus à présenter eh, le milieu Soubisbi. Ce soir, nous invité à Kharitam, à Sopem, Girdef, le Khanyo Modi, Ndogobo, Amsolo, comme nous ko defee chaque année. Donc, elle a dû le nécessaire cette fois-ci, nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. Awa Banaya, je vous remercie. def def def def sa yëf maa la ñaar maa la ñaar. maa la di nuyu monde entier di nuyu soppe man di jàmm yi. ma kenn daal maa ngi nuyu ñëpp. waaw waaw loolu tey bi nga wootee ndogu gis naa ni chaque année nga def ko mais année bii nii dafa gën a exceptionnel parce que awa dafa gën a yaatal mbir yi ba pare. parce que nit ki su lépp lépp loo mën ci def rek dañ ci boole sant lii nii du du du loo xamante ni nit su ko gisee war na cee war a mën a am benn kàddu bu ñu teg ndax joxe ndogu kese la defar yéen a jaamu bu suuf am ci defee nag ren amuñu dara lu dul lu dul kontaan kese contentement kese laa ci am mbégte kese laa ci am nga doon fecckat bu siiw yàlla may la tur nga ànd ak waykat bu siiw Wally Ballago Seck eh, bi ngay taxawal eh, ndogu bi nii ren waxtaan nga ceeg moom la la ci wax ak aussi awa ñu bëri ñu wax naan ndogu yi lan moo tax ñu sponsor ñu def ñu gunge pour ñu mën ci accompagnement bu am solo eh, donc ndogu yi ni ci ak <laughs> yi bi ma ko tax naa si waxtaan am naa fa mais lenn rek laay wax mooy bu affaire de sponsor mhm. nit ki lépp looy def te bëgg cee am ngërëmal suñu borom jarul wut sponsor boo ci demee rek mu xam ne ngërëm kese kese kese kese nga ci bëgg ngërëm képp képp képp képp képp foo mënti nekk Ahmadou da la fay fekk ndax am nit ñoo xamante ni foo mënti nekk dañ la fay fekk dañ lay dimbali te yàlla rek tax muy sa doolee poche muy doole seen doolee poche buñ ko mënee dañ koy def dama ciy sant yàlla kese maa koy def te te te sant yàlla kese laa ci am. macha allah aw bana yaa taalibe Serigne Abdou Karim borom Makarimal Akhlaq euh, ku xam na sa diggante ak Serigne bi sànq rek ñu def interview ma maa ngi sawaay ne lañ ko def si ginnaaw photo ba léegi ne lañ ko def si photo Serigne Abdou Karim sama Serigne euh, sa relation ak Serigne bi ak mbokk yi euh, ñaanal na ci am nga ci ndigal lan ngay wax sant ndax man taalibe kese laa bëgg sëñ Fallou jot ma ci sëñ Fallou ma jiital sama bopp dem ba Touba jëmbal sama bopp sëñ Abdou Karim teg ma loxo it nag ku ma xam dëgg ñi ma xam dëgg xam nañ ni ma mel ci yoonu murid bëgg Ahmadou képp def ko lépp it sëñ damay am ndigal lii nii ku ko gis nii tey xam ni euh, jàmm rek lañ ci bëgg mhm. mooy di jël sa alal di ko jox jaamu yàlla te te defaloo ko ñi nga xamante ne ay n'importe ay n'importe qui la ñi nga xamante ne dañuy dem daal seen doole nga taxaw ci kaw tali bi heure ndogu jot nga génnee café génnee mburu génnee lépp jox leen ñu lekk gërëmal suñu borom nga ci am kon sëriñ bi da lay may ndigal moom da koy am par léegi joxe ndogu léegi tendance la ci nekk ci showbiz bi surtout euh, da ngeen di faral bu koor jotee rek ngeen songandoo yéen ñëpp joxe ndogu yéen a ci dégg lu ne nag am na ñuy critiqué di wax naan defoo leen ko te yàlla sax leen koy def di ngisal euh, am nañu ko gën a yayoo et tout bu ngeen di def dara te mu doon lu baax ngeen di dégg critique yooyu euh, yan yan retombé lay am ci après. naa war a dégg ma benn critique dëgg neex yàlla dégg ma gis dégg ma gis ma. boo duñu ma ñetteel dara boo bu doon ñu koy wax ñeneen ñi siiw. da leen peut être ndox yi koy wax ñeneen ñu siw yow nit ki yow nit ki yow yow nit ki dëgg nga xam sa bopp xam ne lii kat ngay def nii bëggoo ci dara lu dul ngërëmal suñu borom te muy dëgg ci yow non bu ñu waxee loolu du la déranger parce que yow mi sa jëm boppam xam nga li tax nga nga jug pour def loolu sama kër yaay bii maa ngi doora door a def lii loolu Cheikhul Khadim jàmm ak salaam ak sa sëñ euh, sëñ Abdou Karim sa sëriñ Touba am ngërëmal Ahmadou ndax fépp fu ma mënti nekk ci àdduna ñan na yàlla am ngërëmal Ahmadou fii ngeen nekk nii dama woote joxe ndogu comme nit ñi bu ñu ndoga ba pare man ak samay mag ñoo fi nekk fii hmm. ngi gis ci baas bi yëpp hmm. samay mag ñoo fi nekk samay rakk samay mag yi góor yu jigéen ñoo fi nekk yaa may dégg di ma jàppale ak samay nit samay nitu bopp ñëw ñu jàpp ci kenn joxe ndogu hmm. bu ñu paree loo seen saali sàmb mu waxtaanal ñu si xasida sëñ sëriñ Tuubaa yi firil ñu ko pour nit ñi nga xamante ni am na loo xamante ni xamuñu ko ci sëñ bi mu dimbalé ñu ko ñu déglu ko ci jamm ak salaam bu ñu paree ñoom sëñ Ahmed yëkkatul ñu zikrullah ñu xamni li kat kat ñu ko ak tay ji bu fekkon gis sa kasse bi te bëgg di nga toog sa biir kat def ko sa ci bi sa mburu def xar def li nga wara def dem ci tali bi après ku ne dem ay sant lañ ci jóg c'est la première fois ma def ko man koy doora def mo ko defé it sëñ bi daf ma ci dimbal ndax soxlo mu len ma ngi sant ñi ma togué ni te non la nar a sante bëgg digg di jeex barke Cheikhul Khadim d'accord d'accord absence Wally yàgg na toog ngeen lu bëri joué woo leen te ku wax artiste wax que ni bu joué ci lay am ci lay am xaat xaalis mun ci suturlu boppam Ramdan naka ngeen di dundee ci absence Wally ñun amuñu absence Wally ñun Wally mun suñu war kataar hmm. ba léegi kase yaa ngi ñëw amuñu absence Wally koo xamante nga toog nga def nga joué mu gis sa mu ñàkk la gis lépp da lay dimbali amuñu kooku mu ñu daf ñu defal ñuy liggéey ñu ñàkk defal ñuy toog mu ñu mu ñuy defal ñuy toog mu ñu defal ñuy mu ñu defal muy ñàkk nekk barki Cheikhul Khadim de caméra man lii nii bu dul bu dul tey nii bu ko weesoo tey nii pour pour may dem di def ci interview c'est c'est c'est rarement yow yaa ma gën a sonal nag yaa ma gën a sonal foo ma mënti a da ngay wax en ak nit da ngay wax en tant que sa diggante yow lépp loo xamante ne sama génn toog sama laa ci jëm billaay walaay wa yërëm nañu xam na ne yor na ay nit xam na ni ay nit la yor di leen ñu ñu yaakaar ci moom leen ñu dimbali du ñu teral ah xam ni it moom ñun dañoo yaakaar ci moom waaye ñun it dafa am te xam na loolu te mu ngi koy defal léegi barki Cheikhul Khadim bi koor gi liggéey gis nañ Omaro mu ne Wally dafa yëkkati vingt millions séddale ko waa Ramadan ñu bëri ci réseau yi nag doon yow mi nga xam ne yaa ngi biir Ramadan est-ce que di nga dëggal kàddu yooyu Omaro waxoon koy dëgg bu baax donc jot ngeen seen suukaru koor. bu baax a baax a baax a baax du du guleet sax ma nekkee Ramadan trois ans si ren damay am damay am suukaru koor damay am xaalis korite damay am xaalis tabaski damay jékki saa nii rek ñu yëkkat euh, tonton Ndiaga woo ma allo Awa maa ngi lay dugalal lii sa papa moo la ko jox. waaw wax ma ne la budul koor budul korite budul dara damay jékki saa sa papa moo la yóbbu. or mi kase quoi. waaw mi nga am kase soirée. waaye daf de répétition bu bees bi nga xam ne Wally inauguré na ko euh, vidéo rek moo génn mais jur na polémique dèjà yow da may wax ci studio de répétition boobu nga xam ne Wally daf ko créé lan la mën a apporter waa Ramadane après ma doog a ñëw ci polémique bi mu créé. waaw mën nañoo apporter lu bari parce que ay musiciens dañuy dañuy répéter musiciens day répéter dañuy répéter sama papa bu demee ba jël këram def ca studio ñun ñuy

yow gis nga ni foofu amul photo Pape Diouf. gisuma ko de. tamit gisuma ko de. waaw foofu photo ñëpp a ngi fa photo ñëpp a ngi fa. gisoo Pape gis nga fa Pape Diouf. photo ñëpp a ngi fa. non photo Pape Diouf nekk fa. photo ñëpp a ngi fa yow yow ñàkk ngaa gis ne fii Pape Diouf nekk fa. gisuma ko fa. Ah, ah. yow gisoo ko fa. yow gis nga ko fa. ma ne ndax yow gisoo man gisuma ko fa waaw. Ah, man dafa mel gis naa ko fa. dafa mel. photo ñëpp a ngi fa man damaa affirmé ne gisuma ko fa. artiste yëpp a ngi fa. ah waaw photo Pape nekk fa de. photo ñëpp a ngi fa. donc polémique Wally Pape ba léegi mi ngi am mais da nga koy rafetal photo Pape Diouf photo ñëpp a nga fa. képp koo xalaat ni artiste baik photo waaw ñëwal waaw ñëwal nitu showbiz la mais ku fekk awa këram wala événement bu muy organisé yu mel nii danay gis jëmu yaay faal jëmu baay faal maa bi sa diggante ak sa ginnaaw lan la euh, loolu soo ma ci soo ma ci soo ma ko laajee dama ciy tontu sawar parce que awa avant tout man dama dama dama dama bëgg sëñ bi. waaw dëgg ci moom. ndax bëgg bëggu nii rek de di naan jërëjëf sëriñ Touba wala di naan barke sëriñ Touba dama bëgg sëñ Touba dañuy dëgg ci moom doon taalibe di gëstu bëgguma noonu doon noon noon noon noonu doon taalibe kese di toog naan taalibe sëñ Touba laa te gisuma jànguma xooluma dugguma ci biir pour xam kan mooy sëñ chaque jour bu ma xëyee maa ngi fexee xool kan ma sànni. am na loo xam ne yaa ngi koy bëgg a wax mais en fond xam lan la euh, foo jaar ak sëñ bi la bëgg a wax. sëñ bi ah. dama judd doon awa màgg xàmmee hmm. suñu koñ bi chaque jour da doon am kuréel ñu dégg xasida sëñ bi suñu waa kër ay taalibe sa man ak sama mag yi góor yi kese ñooy ñooy ñooy ay taalibe xam ñooy ay mburit saari dem di gëstu affaire sëñ bi muy dugg suñu xol ñuy yëg ni ñun ñii ay mburit lañu di xam ne ñun ñii ay mburit lañu di déglu xasida sëñ bi muy dugg suñu biir xol ñuy xam ni kat lii la ba pare ma jóge fii dem Touba. dénk sama bopp sëñ bi bëgg sëñ Fallou def ko lu xamul kese moom dong jotuma si sëñ Fallou ma dem jébbal sama bopp sëñ Abdou Karim bi ma yeggee ci sëñ Abdou Karim mu defar ma it jébbalu ci ay tànkam bi dara doonulee dara bi dara doonulee dara dem ko sëñ Karim mu wéetee xalaat rek damay xam ni sëñ Tuubaa mooy lu mu la musa wax Baay Karim lan la musa wax ba yàlla def li muy def Awa Banaya ñëpp xam nañ ne c'est une célébrité c'est une icône dara ñëpp ràññee nañ ko léegi ci wàllu fecc nga toll fi nga toll ndax sëñ Abdou Karim am na ay kàddu yi nga xam ne dénk na la ko benn bés nga fàttali ko baax yi téléspectateur

yàlla naa ci sax xam lan moo tax su ma woon kersa nii voilà loolu noonu waxaluñ ma ko woon leneen laay dégg di ko gën a ñaaw Sénégal moo ni mel gën a dégg de awa danga tëj sa bopp bi nga wax léegi awa dafa tëju hmm. awa dafa réservé awa dafa ñàkk kersa awa dafa am caractère barki Seydina Muhammad moo ma gënal awa dafa ñàkk fayam wala awa foo tourné gis ko wala amul benn personnalité wala amul douleur sante naa ko yàlla si loolu dinaa ci sax ndax Sénégal boo fi nekkee Sénégal moo nekk benn dëkk boo xamante ni dafa métti yooyu yëpp boo ko làmbawul doo dem à chaque fois da ngay gis luy luy luy luy sa kanam loo xamante ni pour di fexe di la di la di la di la ay ay tolof tolof yi àddina te bugguma bugguma bugguma di yegg foofu nit ñi moo tax ma réserver sama bopp toog fi ma war a toog régler sama pecc kese mais du dara du dama bon ñi ma ñi ma dëkkal xam nañ ni ma xam nañ sama xol xam nañ am nañ am nañ xam nañ xam nañ nit ki kat ki mu doon quoi moo tax am na yoo xamante ni mooy

yow Fat ndoy ak ak extra ci famille bi jamm ji kan moko waral ak lan mo waral jamm ji ba legui ni dox tank jamm man lu war a dox tank jamm sama diggante man ak sama nak Sénégal lu metti Sénégal nak fofu la démarré parce que man je suis pas fausse man je suis pas une fausse personne man duma nit bo xamanteni ni ci limay wax man lumay wax lumay wax lumay wax lumay wax day fekk mu jóge si sama xol ma wax ko suma amul envie wax moy li may tontu bu ci bugul li nga may laaj bu ci bugul tontu du ci wax man non la mel man non lan ma yere loolu la xam nay ja amuñu problème man suma sœur la Numu Kunda ak Banta ño bokk nday ak bay sama yaay ak papa nday Ndiaye ño bokk nday ak bay sama papa di di jaay ci yaayu nday Ndiaye ko lolou deret la du derewantu te derantaw ni na di wax ay nit ki sama mbokk la wal dara deret la fi moy Banaya de fi ngeen ñëw nii mooy parcelle unité 11 keur Marti Sow ma ya doy ñoo bokk ben deret ben famille la amul dara lu ñuy xajjal bu nit ñi gisé bu nit ñi toogee rek bu gis ni man ak nday Ndiaye amna lu dossu ñu digënt rek moy dafa fekk loolu lañu bëgg gis. est-ce que du première fois yi nday Ndiaye ñoo ci seen waal yi yi nga doon def gaay yi ko vidéo ne xol leen kanamu awa bi est-ce que du melul koy six nday Ndiaye est-ce que du looloo tax bu ñu leen gisee ngeen nekkat ñu enfin kon awa nangul na nday Ndiaye. man ñima xam dëgg ñima xam dëgg. ñu ma xam dëgg xam nañ dama nit bu bon dama nit bu soxor man soxoruma siisuma yaafusuma yooyu yëpp du sama jikko làmboo ma ko man lan moo leen jotale woon kon bu fekkee loolu yëpp amu amul ci moo leen jotale parce que sénégalais yi aussi tamit bu ñu amee ba tollu fenn dañuy bëgg xam exactement lan moo leen jotale entre diggante mag ak rakk lépp la daal. man lay jaay am mosuñoo am amuñu benn problème ñu amoon problème bu man man ah, ah, damaa ñàkkul fayda bi ma leen koy wax amuñu benn problème mag wili amuñu benn problème. Ndeye Ndiaye vole la vedette à Awa Banaya sur la scène de Wally. Ndeye Ndiaye vole la sen à Awa Banaya Awa Banaya vole la vedette à Ndeye bi waaw mais loolu luy problème bi. Ndeye Ndiaye Awa Ndeye ñëkkee ñëw ci scène bi après am na ñu bëri doon wax naan gisatuñu Awa. Ndeye moo ñëw poñe seen Wally Ndeye rek ngay dégg. da ngay bàyyi da ngay bàyyi Ndeye ñëw man du may door a dina mala la andale bu may papa Arma ak papa Amady dañ doon arrière dama baye may def. mais mais donc sa générosité la lool wa lu dañ dañ dañ ma doon dañ doon arrière dama baye may def nday ya bu ñëwee andale affaire am koy baye da ngay arrière baye nday mu def parce que loolu moy aduna est ce que du obligation c'est arrière. parce que ki ñëw mo toll noonu. non non non du obligation man des fois ma centre ko nday ya yéeg ma yéeg fekk si mu fecc ma fecc parce que ñun ñaan ñep ben dërëb bi la man dumay may ñew dama fecc ri tambalé papa arma mom du du du du koy ri tambalé papa amadi du koy ri tambalé ni arrière may ma ma def parce que lolu la moo tax ñu baye ma ma def ko première fois bi Ndeye Ndiaye dama ñew ci seen waali bi ngeen wàccee lan ngeen wax ni lan lañuy wax kërëm Ndeye Ndiaye këram la bu lan lay wax damay ñew seen waali may naan nii wala dara. wax waxtaanee woon nga ngeen ko avant wala. non amul waxtaan ñu parce amul dara lu ci waxtaan lan la ñuy waxtaan. ñu woo la ne la sister suba ñëw sa seen mais damay ah, ah, officialisé ni que dama ñëw ci waale. waaw bi ñëw jour boobu sa surprise dama defar man yëgu ma ne Ndeye ñëw na jour boobu man bi ma bi ma bi ma bi ma bi ma bi ma wàccee dafa mel ni man dama fecc wàcc. moom mu yéeg waaw ci di defaru. ci laa ñëw fekk lay yéeg mu yéegee pourtant da ngeen ma gis dama ko fekk ci seen bi loolu mooy àdduna nit ñi ñoo mën te fii aaru Sénégal moo demee noonu foog muy am des ay ñamalante yi yooyu da ciy baax muy saf est ce que yaa njaay ci kaw seenu waali est que ça va que c'est compatible parce que ñaari ténor la ñaari ndaanaan yoo xam ne ci fekki buñ boole est que duñ xëccoo bi du métti c'est une danseuse aw bànn fecc loolu papa fecc amuñu benn mais mais mais man li may laaj ci loolu awa day jaay ban la da doon ñëw ci seen waal yi nekkoon ci seen di jaawante awa nga baal ma ci terme bi mais nañ ñoom lay dëkkal sax ne awa dafa raciste waal yi rek lay feccal. du leen ko jiitu waal Ibro Naajo amul feneen fu muy fecc wala wala moom moo jaay. loolu xaaral ma leeralal leen ko tuuti parce que Ibro Naajo. lu tax doy leen si Ibro ñoo bokk sama samay magi góor ñoo koy tëggal ñoo xamante ne ñoo deret papa ak sama yaay ñoo bokk day ak sama seen papa moo namp jox sama yaay ñooy tëggal Ibro Nadio benn deret wala nekkoon ma xadi ñaay may jóge ci Ibro Nadio di fecc di jóge ci Ibro Nadio dem El Hadj Keita mu jóge ci dem ci Mandiaye ba may nekk feccikatu waale mais des du baax ngay dem ci El Hadj seeti ko comme fa nga juutee woon des fois nga dem ci Sidi Diop des fois nga dem ci Momo Dieng fay dem ci soirée ñëpp laay dem man maay dem soirée ñëpp mais Sidi exceptionnellement doo dem doo dem ay soirée lu tax waaw ah, parce que nag nit ku nekk nag wala amuleen liaison yéen ñaar non non du amuñu liaison wala li nga xam ne mooy rivalu waale sax moo tax waaw waaw rivalu waale Sidi rivalu waale waaw waalam la kay jàppoon du rivalam concurrent direct léegi nag xamul bi hmm. ngeen a ñëw ci joxe ndogu yi te caañ wax ci dat benn dat bu ndaw dimbale ma rek nañ wax ci dat benn ndaw rek a man da ngeen am loo yi la wër Baye Fall yi xaaral ma xaaral ma xaaral xaaral xaaral Baye Fall yi la wër dañ ne ma awa day sikar waaw nee ma awa day sikar mbay ah yëkkatil ñu benn rek ñu daaneel ñëwal awa yëkkatil rek yëkkatil rek war ma ko war ma ko sànq